mbokk yi jàngeen jëf ci ànd geeg topp gi yéen ñi ñuy teewlu saa ne ci seen site numéro 1 de l' actualité sur mobile Sénégal lépp ci wàccaay màggalu Touba bi nga xamante ni fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Serigne Touba woote ko waaye nag ci wàccaay gi nag danoo jàll fii ci Daarul Almuxti ñëw fii ci kër Seydina Ousmane Noreyni ci bés bi nga xamante ni moom Cheikh Ahmadou Kara ibn euh, Seydina Ousmane Mbacke moom borom Daarul Almuxti dafa woote lu ñuy tuddee safar fii ci kër Noreyni waaye nag dañ fi fekk jëmm joo xam ne day kenn ci ñu di suñu sëriñ di suñu wëllëre Sénégal gi yëpp miin ko àddina gi yëpp miin ko waaye ñu gën ko bëgg ci loo xamante ni at mu jot askan wi yëpp dañ koy xaar mu di duyoom ak ki ñuy wax jaamaan nekk artiste euh, tey nag moom la ñuy sekkal waxtaan wu gàtt rek ci loolee nga xamante ni tey askan bi chaque année dañ koy faral di xaar ak moom mii nga xamante ni ñu bëri xëy na miinuñu ko waaye tey ci beneen facette ñu sëkk ak moom waxtaan ngir seen mbégte rek mu di moom Serigne Ahmadou Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Kara ñu koy dalal fii ci Sénégal Mbacké bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi wax onze billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di ziar di nuyu waa di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo yaa Moussa ngay sunu xarit di suñu mbokkum taalibe macha allah am mbégte nag dalal leen fii ci kër Seydina Ousmane ci Daaru Moxti ngeen fas yéene fee fekk Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi fi woote safar ci àjjuma ji tey alhamdulilah lañuy waxaat ndax ñun kat dañuy gëm ni ginnaaw bi ñu ko tedd ki boole ci boppam ba noppi wëlbatiku boole ñoog jàmbaaram ji Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni defe naa loolu dara gënu koo rëy loolu mooy ngën gi ngën gi teraanga àdduna ak ci ñun. kon nag dañuy am mbégte dalal leen fii ci ëttub Seydina Ousmane Mbacké Noreyni yéen waa Sénégal. Euh, Mbacké balaa ñoo dugg ci li la askan wi yëpp di xaare chaque année ci sa diggante ak jamaan euh, safar ak weer wu teroo euh, sëñ ma naka la koy dundee rawatina fii ci këru maamam Noreyni ak sa diggante ak sa ak liggéey gi nga xamante da ngeen ko fas yéenee song ngir lépp Serigne Touba daj ci àddina. alhamdulilah. ndax kat yaa Moussa ñun Cheikh Ahmadou Kora daf ñoo nampatal ci Serigne Touba ba ba ba nga xamante ne bi nii ñun xamuñu nu ñuy fayee Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni amuñu ko fayam yaa Moussa Serigne bi boo toogeek moom du la ne naka sa soxna du la ne naka sa doom boo nuyoo ba tàmbali rek mi ngi mi ngi ak ci ku tedd ki bu waxtaanee ci ku tedd ki ba ci digg bi tàmbali zikurlaa bi bu sikar bu sikaree ba ci digg bi ñëwaat ci waxtaani ku tedd ki kooku amul lenn loo xamante ne bi nii ñun dinañ ko toog ak moom di ci amuser moom mbaa di ci passe temps lenn daraam génnul ku tedd kon loolu defe naa ñun amuñu fayam moo tax safar gi ak bu safar gi jàllee tam lépp rek lu mu ci mën a doon dañuy naf-nafi ci ku tedd ki noo xamante ne bi nii ni muy seddee suñu xol suñu làmmiñ du ko mën a tudd te loolu moom lañ koy sante rawatina nag saa bu safar gi terroo weeru safar gépp gépp gépp moom Cheikh Ahmadou Kara mën naa ne bu ma ko sañee wax day yokk sax lam daan taalif ci ku tedd gi ndax moom en temps normal ak weer yëpp la fonk weeru olof yëpp la fonk muy muharram muy safar muy ramadan lu mu ci mën a ñëw muy weeru gàmmook weeru tabaski lu mu ci mën a doon rek moom sëriñ bi da koy jox ak xam da cay jàng la nga xam ni moom la ci moom la ku tedd ki bind ca weer woowu jàng la ku tedd ki bind ca bis boobu ba pare fas yéene naf na fi ci moom di taalif ci moom di ñu ko jox ñu nit ñu koy way waaw am bari na ci ay taalif yoo xamante ni bi nii sax def na ko ci safar gi waaw def na li jiitu bis bi ci weeru safar gi bu nu neexee di koy sant diiru weeru safar gi nee na bu màggal gi jàllee itam ñu continuer cant gi ci saa su ne moo ko jar te moo yooyoo cant gi nee na sant ko moo di sant yàlla mooy sant yonent bi nee na dafa làq seen i ngërëm bu yàlla ak bu yonent bi nee na jërëjëfe Serigne Touba malaaka yi sax wax nañ ko ndax sunu borom a ko njëkk a wax kon kooku taalifam yi rek bu ci bu ci bu ci nit ki sukkandikoo rek da ngay da ngay da ngay màndi da ngay màndi ci géeju leer yi dangay ngay màndi ci ku tedd ki moo tax ñun bu safar gi egsee rek sunu xool day gën a sedd ndax dinañ xam ne macha allah mélodie yi neex dina génn dinañ xam ne bayit yu raar dina génnaat ba ñu ñii ñu jariñu ci joxaat ko askan wi askan wi yëpp kontaan. sa collaboration ak jamaan chaque année askan wi di ko xaar mu mel nii ren ñu ngi ci ñetteel xaw ma ñeenteelu édition bi waaye ren xaw na yéex ba danoo fippu fu nañu yuuxu kañ la kañ la kañ la mbàkke ngeen mujj indi bàmba teraanga naka la mbir mi demee togg gi ak na ngeen ko yekkee ba askan bi gën a bëggati. macha allah xam nga 2018 la njëkkee Bamba Lappé moom moom Abdoulaye moo ñëw ci ñun ñu koy nuyu de wax ñu. projet bi ak li mu am yéene liggéeyal ko ku tedd ki ci safar gi ñu am ci ndigalul sëriñ bi ñu ànd ci ak moom biñ ci ànd moom ñu gis ampleur bi mu am ak doole ji mu àndal sëriñ bi nag dinu gën a gàggante saa su nekk dinu teg ci yoon dinu orienté xam nga donte nag moom ni mu ko bëggee dëgg sax ñun mëneegun ko noonu ndax moom kuy way moo la dàq way kuy xam mélodie moo la gën a xam mélodie waaye ñi ngi góorgóorlu ñi ngi jéem saa su nekk rek ci li nga xamante ne bi ni moom sëriñ bi mi ngi ñu ciy tàggat bu ñu deful lépp cent pour cent tamit dinañ ci sori. waaw dinañ ci sori léegi nag euh, ren ñu ngi ci ñeenteelu single ñeenteelu édition boo xoolee 3 ans lay doon waaye ñeenti single lay doon ndax 2018 la 2019 2020 2021 waaw waaw macha allah. léegi nag euh, suñu collaboration ak moom gannaaw moom ba mu ñu sollicité ñu waxtaan ci muy mbokkum taalibe ñu bokk def li nu def ba noppi ba waxtaan ca la mbokk feeñ. nga xamante ne bi nii lu jiitu loolu xaw ma li ma bokk ak moom moom xamul li mu bokk ak man waaye bi ma toogee way juróom jigéen ci laa xam ci la ca la mbokk feeñ muy sama cousin ñu xam ni kon ku tedd ki daraam du hasard léppam baatin la ndax Serigne Touba daraam génnul yàlla daraam génnul yonent bi moo tax nag ñu fas yéene ci ay mélodie di ci jël li nga xam ni moom Cheikh Ahmadou Kara taalif na ko ci Serigne Touba ñu koy teg ci mélodie di ko jox jaam ñi ñu koy déglu ndax foofu la jamono toll jamono dafa toll foo xamante ne bi nii communication da nga koy façonné waaye di nga ko façonné de telle sorte que wax dëgg yàlla kenn du ne acam xëy na nag munoo am ñëpp ne wii faaw am ñu ni noo ndax noo moom fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi te ñun noo googu sax wax naa ko keroog dañ koy soxla ndax critique dafa baax ci lépp loo mën a gis waaw critique doomu aadama waru koo bañ waaye nag day tax nga gën a xamaat sa bopp gën a xamaat ni ngay doxalee waaye li sëñ Sàmbay wax rek ba video bi siiw na bi muy àtte ci diggante musique ak l'islam waaye nag paroles yi moo am solo kaddu yi moo am solo te dinañ fexe ba tànk du jóg mel ni lu jëm ci asamaan si mbaa ñuy gis image yoo xamante ne bi day mel ni dafa tegginewul loolu lépp ñu ngi koy sàmm boo xoolee à travers suñuy clip kon nag loolu dañ ciy santaat sëriñ bi rek loolu lépp day duggaat ci œuvre pour Dieu à travers les hommes waaw ci révolution pacifique gi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni woote fa nga yóbbu culturel gi. kon mélodie bi culturel bi dafa am maanaam taxawaay bu am solo ci mission bi. ci lu wér taxawaay bu am solo sax. ndax moom Cheikh Ahmadou Kara 2002. sëñ beeg mélodie nga duggaale foofu. ma duggaale fa ci sëñ beeg mélodie 2002 la génne cassette mélodie divine bu ngeen fàttali ko def na 19 ans. asmaawullaahul usna bàkk tur yàlla yi bàkk tur yàlla yi. tëjee ko woo leen ko ci turam yooyu le daan ne Cheikh Ahmadou Bamba nee na buur de kenn la. cheikh dane dane dane woo leen ko ci turam yooyu le ñaan leen ko ci tuuram yooy Cheikh Ahmadou Bamba ne na buur de kenn la Cheikh Ahmadou Bamba moo ne yoneen amul mas loolu 2002 la ko seenaa dégguñu fi lu dul yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. te incha allah duñ fi dégg lu dul yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba. incha allah Bamba Teranga foofu lañ nar a xam naa jeexale nga décortiquer nu ko rek ndax moom la askan wi yëpp doon xaar ngeen bëggal leen ci boobu single gu am solo. xam nga dañ ne Bamba la ne Bamba ñëpp ne Bamba la joie Bamba Teranga ndax dañ naan Sénégal dëkku Teranga la tubaab yi sax dañ naan le pays de la Teranga ñu xam ne ko Teranga bala nga koo mën a defal nit ki faaw nga am jàmm moo tax ñu njëkkee Bamba la te moom Serigne Touba def ne wasalaamu ala man ittabaxal huda la la paix est avec celui qui suit le droit. comprendre kon nag teraanga gi nga xamante ne bi ñun ñu ngi koy bàkkoo di ko di ko di ko di ko ndamoo dañ koy delloo ki nga xam ne moo ko yelloo muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw kon nag teraanga googu nuy faral di wax saa su nekk di ko tasaare mooy ni jullit war a mel mooy ni un bon un bon citoyen rawatina sénégalais ni mu war a mel ni murit saadix wa nabil war a doxalee murit saadix wa nabil warut a xam lu dul teraanga waaw teraanga nag du càgg ni togg ay ñam nii rek wala jël boisson bu sedd rek jox ko nit ki waaye teraanga rek tabe ci sa daraja rek teraanga la waaw fekk koo xamante ne bi nii ñëpp société bi da koo rejeté nga fóot ba mu set delloo ci société bi loolu teraanga la teraanga dafa yaatu dafa fas yaa Moussa buñ ko yemale rek ci ay ñam yu neex nii wala tëdd fu sedd wala ñëw jox la bisaab bu am glace déedéet waaye teraanga au vrai sens du mot mooy li nga yéene sa bopp ci lu baax lépp nga yéene ko sa morom ndax kenn du yéene boppam safaan waaye li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu rek teraanga la. Sénégalais léeg-léeg mu mel ni incompréhension de am ci sa wéyjur xëy na jotaay bi du nu may ñu gën cee yaatal waaye tey boo doon tënk moom mission ak nu ko nit ñi war a comprendre ak yéenam ak li ko tax a jóg loo ñu ciy wax. nit ñi nag duñ ko mën a comprendre dommage duñ ko mas a comprendre waaw te ñun loolu conscient nañ ci ñun ñi nga xam ne dañ na ay njabootu boppam lañ te ñun ñu jaay suñu njureel jëndee ko taalibe waaw ñun suñu digganteek moom du ay baay doom du yooyu weesu nañ foofu. moom da koy wax pitax yi sax am nañ ay papaaki doom si ndax yi sax am nañ ay papaaki doom waaye ni mu def Serigne Touba moo tax ñun yamale ko ak dara noonu la demee kon nag moom il est il est il est incompris c'est un homme multidimensionnel te def ne bu ma nit doon xam Mame ma sëy moo may xam te tuuti lay xam ci man du dëgg kon nag bu kenn xaar ngir comprendre ko xëy na ñi ñi mu dimbali ci boppam wala ñi nga xam ne ni Serigne tubaa dimbali na leen ñu comprendre ci Ahmadou Kara ñooñu ñooy mën a comprendre ci Ahmadou Kara mbaa am li ci des nag nañ bàyyi ba ëllëg la maam Serap Fall waxoon ndax dinañ fay wax bàyyi jëf. ñu tëjee jërëjëf Serigne Touba ak sa yóbbal ci ñi lay teewlu ndax bari nga ay soppe tey lan nga leen di dënk ginnaaw jërëjëf Serigne Touba mel na ni bésu tey gi tamit am na lu mu ci doon am na lu ñu ci war a clôturer balaa ñoo jublu ci bés bi di fukki fan ak juróom-ñett ci safar. waaw jërëjëf Serigne Touba daal li Cheikh Ahmadou Kara wax rek nee na yàllaa ko njëkk wax nee na mu dajale ay malakaam ñu wax ko yi wax ko ulama yeeg sohada yi nit ñu baax ñëpp wax ko kon ngelawaay Sénégal nan ko delloo njukkal rek ndax boo nee jërëjëf Serigne Touba képp ñu baax ñëpp a ngi ci biir loolu la nit ñi xamul. du caagi ne da nga naan jërëjëf Serigne tubaa di détaillé boo paree ne jërëjëf borom Daaru Moti wala jërëjëf keneen wala jërëjëf seen diw jërëjëf Serigne Touba ñoom ñëpp dañuy dugg ci biir te loolu tawféexu àdduna ak alaaxira la te ku ko sañ wax biiral ko da ngay xam ne yow xolu kiñaan nekkul ci yow nanu saytu ak moytu li sëriñ bi di wax foofu lañ koy tëjee looy saytu lu baax looy moytu lu bon boo ci jógee xam sa wareef def ko salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mbacke